àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla yépp di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan subhaanahu wa taala mu sàmmnu sàmmal ñu suñuy kilifa yàggal fi suñu kilifa gii di cheikh Mouhamadul Muntaqa te sàmm ko te yokk ko wér nu dellusu rekk ci waxtaan yoo xam ne tàmbali woon nañ ko muy bunt buñ ubbi woon jëmale ko ci amraadul qulub te mooy jàngoro yi nga xam ne jàngoroy xol la mu doon loo xam ne jullit bi waxtu wu nekk da koy war a bàyyi xel ndax jàngoro la yoo xam ne mën naa yàq ay jëfam man koo xañ tuyaaba yu bari mën na koo sax yóbbe mujj gu ñaaw wala iyaazu billah ni ko sëriñ tubaa radiallahu anhu waxee ci masaalikul jinaan waxtaane woon nañ benn ci jàngoro yooyu muy alkibru te mooy rëy tey ñu bëgg a dellu ci beneen jàngoro boo xam ne mooy arriyaau te mooy njistal ñu bëgg a fàttalente rekk ci loolu di riyaawu fàttalente mooy lan fàttalente li nga xam ne am na ko ci ay lor ngir ñu gën koo mën a daw fàttalente ci li nga xam ne noonu lañ ko war a jéem saafara ci koo xam ne yàlla nattoo na la ko li nga xam ne mooy njësal nag mooy rekk nit ki di jëf jëf joo xam ne suñu boroom la ko wara jëfal waaye mu du ci bàyyi xel doomaadama yi di leen ci gendiku kon mën nañ ne ar u dafa safaanoo ak al ixlaas te mooy sellal li ngay def nga def ko ngir jëmmi suñu boroom képp baatum njistal buñ ko seetoo mu ngi jóge ci gis kon di def dara ngir nit ñi gis ko loolu njistal la ni nga xamee ne baatum ndéggtal mi ngi jóge ci dégg mooy la ngay def di ko def ngir nit ñi dégg ko kon li nga xam ne jullit bi da koy def suñu boroom rekk war a tax mu def ko waaye mu bëgg nit ñi yëg ko te yëg googu day bëgg ñu tagg ko ci day bëgg ñu màggal ko ci day bëgg ñu jox ko ci ab cër moom la sëriñ bi di wax ne ama riyaau fa huwa an yasal fata li xasdi taazimil wara in thabata mu nit ki danay ja def jëf joo xam ne lam ci jublu mooy nit ñi màggal ko rek aw jalbi xayrin aw li dafci charri ka talabi lmaali wa xawfi durri wala la muy def da cay bëgg njariñi àdduna bëgg ci mucc ci ay lor te yàlla rekk wara tax mu def ko di wut di ca wut alal wala mu ragal lu ko ca fekk kon jullit bi li muy def da ko war da cee war jublu suñu boroom da cee fara wut ngërëmul suñu boroom loola bu ko deful waaye di gestu di bàyyi xel doomu aadama yi loola njistal la moo tax sëriñ bi wax ne kon nit ki la muy def donte nit ñaa ngi koy gis waaye moom ci xolam defu ko ngir nit ñi loola bu boobaa du bokk ci ngistal mu waxoon ne waman yakun lil xalqi zaltifaati fi saayihi fa biriyaa in ati koo xam ne dangay ngay di bàyyi xel nit ñi di leen gendiku ca la ngay def nee na kooku mi ngi ngistal doonte gisuñu ko doonte dafa wéet moo tax mu ne naam wa in xalaa doonte sax la muy def ci wéetaay la koy def waaye ma nga fas ci xolam ne mën naa am ña nga naan maa ngi def nangam wala danañ jàpp ne kat maa ngi def nangam nga xam ne nangam jooje wala yaa ngi xalaat bu la fi nit fekkoon dana la ci jox ab cër bàyyi xel googu ngay bàyyi xel doomu aadama yi ca la ngay jëf loola ngistal lay doon waaye nag nit ki su demee ba bàyyeetu xel doomu aadama yi ci li muy def doonte danañ ko gis doonte danañ ko ci tagg doonte danañ ko ci yëkkati loola kon doonatul njistal bi nga xam ne moom lañuy ñuy ŋàññi moo tax mu ne wa illaa fa yuad min muxlisil ibaadi saa bu demee ba gëstootu doomu aadama yi ca la muy jëf kooka day nekkatul koy njistal walaw saa bayna al wara kullihim kullihimi li kawnihim fi qalbihi kal kooku su fekkee ne doonte ci mu ngi nekk ci digg nit ñi waaye xolam la muy def yàlla rek la koy seedeel moom rek la ci jublu kooku kon lu muy def dootu doon njistal kon bari na loo xam ne euh, du njistal ndax nit ki jubluwu ko ca doonte da ko cay am mooy euh, nit ñi di la tagg wala di la sant ci jëf joo jëf loolu taxul mu nekk njistal su fekkee ne yow ba nga koy def suñu borom rekk nga jiital ndax abu zar radiallahu anhu laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko danga gis nit mu jëf-jëf joo xam ne aw yiw la nit ñi di ko ci sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko tilka ajilatu bush al mu'min nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko laajee ne ko nit dana jëf jëf joo xam ne moom ba mu koy jëf ñu tagg ko ca taxut ñu gërëm ko ca taxut ñu yëkkati ko ca taxut waaye nag sant nañ ko ca tàgg nañ ko ca yëkkati nañ ko ca mu ne ko loolu day mbégal mbégte mu ko yàlla di bégal ci àdduna mbégte moo xam ne day jiitu mam koy bégal àllaaxira day mel ne daal buuñaa lañ koy mën a tudde lu ko suñu borom di defal la di ko fayee tàmbalee ko ko fayee fii waaye kon mooy kooka ba muy def loola jubluwu ca woon tagg woowee mu ca amee du doon njissal su fekkee ne nit ki dafay def lu baax lu nit ñi gis waaye moom ngir rek ñu roy lu baax loole muy def moo tax mu feeñal ko bu boobaa dana ca ame aw yiw woo xam ne ña ko ca roy lañ cay am ci yiw moom dana ko ca amee bu du bokk ak li nga xam ne moom la ko ci suñu boroom di faye kon daal li nga xam ne moo mooy mooy dëgg dëgg njissal mooy nit ki la muy def rek ngir ñu tagg ko ca ngir ñu yëkkati ko ca ngir ñu jox ko ci ab cër boo xam ne day bëgg ñu sukkandiku ca loolee muy def te loola suñu boroom la koy defal loola mooy njissal loolu nag moo mat moytu lool kon nit ki di wane ak cawarte ci jaamu yàlla te yàlla rekk tax wala mu gis ñu nit ñu baax ñi di def lu baax mu jéem leen caa roy di leen toppandoo ca mbaax googe loolu duñ ko jàppe njissal kon daal njissal mbir la moo xam ne ci xolub nit ki lay njëkke ndax mooy bëgg ba muy ga muy bëgg ñu di ko yëkkati ak bëgg ga muy bëgg di ko ñu di ko tagg loolu nag dafa doon loo xam ne dafa naqare mucc ci jamono ndax jamono ji mooy léeg-léeg mooy ñoddi nit ñi ci ñuy yëstal ndax boo seetee léeg-léeg nit ñi jiital gi ñuy jiital jëf yu fés dana tax nit ki di fésal ay jëfam léeg-léeg ci ngir yëkkati gañ ko cay yëkkati ak tagg wañ ko cay tagg ndax nit ñi daanaka lu ci baree bari li fés lañuy ñuy gën a seet ci li nga xam ne lu baax la te fesut nag léeg-léeg sax nit ñi danañu gën a xiir jullit bi ci ay jëfam bam di ko fésal te loo xam ne waru koon a kon fi jamono toll ak maslaa mu bari mi mën naa ñoddi nit ki ci muy wan nit ñi ay jëfam ngir ñu gën koo mën a may maslaa ak ngir ñu gën koo jox cër bu boobaa day nekk ngistal ci moom kon bokk na ci li nga xam ne it dana xiir nit ñi ci ñuy ngistal fi jamono toll ci lépp eh, xewitu di wane lu ne lu ne ñu di ko wane ndax jamono lim indi ci ay xarala tax na looy def àdduna bi man koo gisandoo eh, man koo déggandoo man la caa daal woo ne la gis naa def nga nàngam yëg naa ne def nga nàngam ba tax na ñu bare bari loola mën na leen a joo ci lu ñuy defati di ko wane xam nañ léegi dangay gis koo xam ne moom dong day nekk ci barab di ñaan bay jooy waaye di ko filme bu noppee dugal ko ci Facebook bi ca moom ñaan googe suñu borom rek la ko jëmale waaye doo xam lu tax muy bëgg nit ñi xam ne doon na ñaan fii walla mu ngi barab sàngam loolu yépp léeg-léeg fi jamono toll mooy xiirtal nit ñi ci ñuy wane lu ne ci waxtu wu nekk léeg-léeg sax dangay gis koo xam ne day ziyaare kilifa yóbbaale ab téléphone di ko filmer te kilifa gi du ko yëg loolu di lu doy ndax kilifa gi nga xam ne mi ngi waxtaan ak yow te waxtaan wa ci yow la ko jëmale ah nga di ko génne àdduna bépp di ko dégg donte dara lu ay du ca nekk waaye nag du woon jubloom loola ngir bëgg rek yow ba nga koy def sa bopp a tax nga di ko def ngir am cër buñ la jox ak fuñ la teg loole yépp dafa mot a maytu te dafa tasaaroo loolu lépp tekkuwul nag ku ku def dara wane ko ci internet bi da ngaa sal lu tekkiwut loolu ndax tanaafus ci lu baax rawante ci lu baax ngir nit ñi roy ko kon jublu ga moo ci am solo waaye da ci am ñoo xam ne nag bari gim bari ak tas gim tas moo tax dañ ciy toppandoo ba far barab buñ nekk nga xam ne dañ fa war a teewlu war faa wéetal yàlla sax dangay gis ñuy ñu koy ñu koy génne di filmer seen bopp di ko wane di ko di ko tasaare Euh, loolu nag buñ tolloo foofu euh, te am ñoo xam ne ci loolu sax dañ ciy jaare moom di ci wut lu ñu am waaw di la di la di la fësalal say jëf di la tagg ngir nga nga loolu nag ku yàlla dimbalewut mën naa tax loo defati fësal ko yeggale ko ci ña nga xam ne buñ ko yegee ñoom tasaare ko yëkkati ca sa daraja boo demee ba jublu ca loola rek bu boobaa day wàññi danga nga ca waroon a am ci ay ay tuyaab li nga xam ne nag am na ko ci ay lor ndax jàngoro la ju nekk ci xol joo xam ne day bari lool lu muy yàqal yàqal nit ki moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne li ma gën a ragal ci yéen nga xam ne moom laa gën a ragal ci masiixu dajjaal sax mooy lii nga xam ne mooy ba bokkaale bu nëbbu mooy nit ki dana jóg julli di rafetal julli ga lool ngir xam na ne ñi ngi koy xool xam na ne ñi ngi koy bàyyi xel xam ne rafetal ga muy rafetal julli gi bàyyi xel gañ ko cay bàyyi xel tax na mu gën caa sonn nee na loolee day mujj nekk ba bokkaale bu nëbbu ndax sëñ bi sax day wax ne def ngir nit ñi moom bokkaale la bañ a def ngir nit ñi nga xam ne dañ su ma defee ñu wax ko loola kon mooy mooy ngissal moom gis nga fa ma ko yeggale maanaam ngir euh, bu ma defut xëy na bu ma defee danañ ma ne damay ngissal ma bañ a def kon nit ñi tax na defatoo loolu nag dafa dafa dafa matamaytu lool kon <coughs> eh, yonent bi sallallahu wa sallam dafa wax ne ala axbirukum bi ma huwa axfa axwafu alaykum indi min almasiixi dajjaali ashirku alxafiyu an yaquuma arrajulu fa yusalli fa yuzayinu salaatahu lima yara min nazari rajulin kon yëg ne ñi ngi lay bàyyi xel tax nga ngay gën a fonk sa julli nga koy gën rafetal te defoo ko ngir subhanahu wa taala waaye da nga koo def ngir bare gi ñu lay bàyyi xel loolu njësal la loolu sax dañ koy yegg yeggale ci euh, bokkaale bu nëbbu damay wax ne ñi nga xam ne dañoo yor yarub sëriñ bi nga xam ne lu ñuy def dañ koy def ngir yàlla te duñ ko gis duñ ca duñ ko wane buñ daan julli it seen julli dañ koy def rek ni leen ko yàlla digale waaye duñ ca nekk yi ëccëg duñ ca def yoo xam ne day tax ñi di ca wanewu ba tax ñi xamut loolu ñu ko déggul dañ daan wax jullig murit fekk te jullig murit dëgg mooy rek yow ku gisoo julli gi def nga ko rek te yàlla tax ba nga ko defee génne nga ko ci sam xel doo def doo ko def ngir ñi may xool ak lañ lañ ma cay wax waaye da koy def si yàlla yàlla rek subhanahu wa laa tax loolu nga xam ne lor yi nga xam ne am na ko te bari lool nag ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne moom laa gën a ragal ci masiixu dajjaal moo tax sëriñ bi di wax ne li ci yàlla tëkkoo dafa dafa dafa rëy dafa tar ni ci yaa suñu borom subhanahu wa taala tëkkoo dafa tar ndax suñu borom bu demee bay tëkku ñuy julli waaye da caa limaale melokaan ya ñuy jullee mooy dañ cay njistal wa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahun alladina hum yuraauna wa yamnauna almaun mu bokk ci lor yi nga xam ne gisal am na ko mooy day tax nit ki li mu defee ne da koy yëkkati mën naa dem ba suñ boroom wàcce ko ci bëti nit ñi ndax alayhi salaatu wassalaam nee na koo xam ne la ngay def danga bëgg nit ñi dégg ko yàlla dana ko déggal nit ñi waaye bu ca bu noppee dana la tuutal dana la dana la la xeebuloo kon man samaa annaasa bi amalihi samaa allahu bihi masamia xalqi wa sagarahu wa xaqara lii di njistal bokk na ci ay loram mooy day xañ nit ki ab yoolub àllaaxira la ko suñ boroom subhaanahu wa waroon a faye bu njistalee day mel ne la ko ca nit ñay jox ci ay daraja ak fañ koy teg mooy nekk ak fayam moo taxoon alayhi salaatu wasalaam wax ne bashir hadihi l ummata bilsanaai wa diini wa rifaati wa tamkiini fi l ardi fa man amila minhum amala al axirati liddunia lam yakun lahu fi l axirati nasibun xam ne lii ngay def alaxira tax nga moom rek moo tax moo war a tax nga def ko nga def ko ngir àdduna boo demee alaxira doo ci amuk cër waliyaazu billah nga xam ne kon njistal dafay yàq dafa yàqal nit ki yoolam ba mu waroon a am moo tax subhaanahu wa di wax ne yaa ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqaatikum bilmanni wal aza kalladi yunfiqu maalahu ria annaas ci it am na xadis boo xam ne abu hurayra tam moo muy xadis bu doy waar lool ndax day wax ne ñi ñuy njëkk atte bokk na ca koo xam ne dafa sëhiit maanaam koo xam ne dafa faatu ci xare dem ci suñu boroom suñu boroom xamal ko la nekk ci tuyaabay jëf jooje ku ko def lam ca waroon a amee ne ko nag yow loo def mu ne ko man de dama xare ci saw yoon ngir yëkkati sa baat ba shahid ca mu ne ko li nga wax demewul noonu de waaye danga doon xeex ngir ñu kii dafa ñeme kii jàmbaar la te wax nañ ko kon amatoo fi dara ne nañ ko diri sànni sawara wala yaasu billah ak koo xam ne dafa jàng xam-xam di ko jàngale jàng alquran yowmal xiyaam ñu ne ko lii de mooy payu ku doon def li nga doon def maanaam ku doon jàngale alxuraan di ko jàngale sàkku xam-xam di ko xamle lii mooy ak payam ne ko yow loo def mu ne ah man di ci loolu laa nekkoon dama jàng ba xam wëlbati ko di ko jàngale di jàng alquran ñu ne ko defoo ko de defe demewul noonu de waaye dangaa doon jàng xam-xam ñu ne diw boroom xam-xam la danga doon jàng alquran ngir ñu ne kii ku mën a jàng la kon nag amatoo fi dara ñu ne dañ ko diri yóbbu sawar waliyaasu billah yaa nu ci yàlla musal ak koo xam ne dafa yor alalam di ko joxe tabe lool yowmal xiyaam ñu ne ko loo def ginnaaw bu buñ ko xamalee nag ki tabe ak ki doon def ci yoonu yàlla ak a joxe lañ koy fay ba mu gis ko ñu ne ko yow loo def mu ne ah man kat sama sama alal ji dama ko doon dépensé ci yow ya suñu borom subhaanahu wa taala mu ne ko demeewul noonu waaye da nga doon joxe ngir ñu ne diw ku tabe la kon nag wax nañ ko ba noppi ñu daal koy diri yóbbu sawara wala yaasu billah yàlla na ci yàlla musal kon xoolal jëf yooyu ni ak koo xam ne dafa yor alalam di ko joxe tabe lool yowmal xiyaam ñu ne ko loo def ginnaaw buñ ko xamalee nag ki tabe ak ki doon def ci yoonu yàlla ak a joxe lañ koy fay ba mu gis ko ñu ne ko yow la loo def mu ne ah man kat sama sama alal ji dama ko doon dépensé ci yow ya suñu borom subhaanahu wa taala mu ne ko demeewul noonu waaye danga doon joxe ngir ñu ne diw ku tabe la kon nag wax nañ ko ba noppi ñu daal koy diri yóbbu war wala yaasu billah yàlla ñu ci yàlla musal kon xoolal jëf yooyu ni màggee mooy faatu ci yoonu yàlla ak jàng xam-xam di ko xamle ak alquran ni mu màggee ak am alal di ko def ci yoonu yàlla lépp ngir ngisal mën la koo yàqal kon loolu mat naa moytu te sax boo xoolee ngistal ñu boole ko ci melokaan yi ñuy melale ñi nga xam ne ay naafiq lañ wala yaasu di ko melale ñi nga xam ne gëmuñu yàlla wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa ria annaas suñu boroom li ñu wax ne munaafiqiin yi bokk na ci seen melokaan mooy ngistal innal munaafiqiina yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum wa ida qaamu ila salaati qaamu kusala yuraauna annaas kon yàlla incha allah kon loolu ni mu baree ay lor bare ay ngaañ moo tax sëriñ bi di dénkaane lool ci ci ci di sellal ak di moytu ngistal di wax sax ñoo xam ne xam nga ci ñoom ne dañuy ngistal daw leen ndax mën naa am ñu wàll la ko ni nga xamee ne ni ngay dawee euh, gaynde nanga leen dawe noonu mu ne wa kun xarisan ala al ixlaasi fi amalin waxshal muraina turran xawfa niiraani xéral ci sellal ci sa jëf nanga ragal ñi nga xam ne ay ngistalkat lañ nanga leen ragal ñoom ñépp ni nga ragale sawara waltaku inda mulaaqaatin lahum abadan kaman yulaaqi usuudan ma widaani boo dajeeg ñoom nanga mel ne ku dajeeg gaynde ci biir aw xur mu ne kam aamilin amalan yarjul jazaa bihi yowman bihi llahu yajzi kulla insaani wa laysa yajzi lahu shay'an siwa nadamin sa'yu riyaai wa tarku yi siyaani mu ne bari na ku jëf-jëf joo xam ne da cay yaakaar ak pay bis ba yàlla di fay nit ñi te moom yàlla du ko faye dara lu may rëccu mu ne kon bàyyi jëf maanaam jëf joo xam ne jëfi njësal la ak bañ a jëf ñooyam kon koo xam ne mënta nëbbu ci ay jëfam dara lu may lu mu def dana ko ngistal kooku na xam ne nekkul ci dara mu ne laa tax ju taxju annaka fi cheyin isa ajazat yaa saaxi nafsuka an cheyin bi kitmaani kon nag ñu war a moytu góorgóorlu ci yar suñ bopp góorgóorlu ci delluwaat jéem ko moytu aka daw aka saafara sëriñ Tuubaa ci masaalikul jinaan mi ngi ñuy jàngal ku ko bëgg a saafara doo koy saafara ba mu waxee ci mbirum déggtal ak ngistal da caa teg ne summa dawaa u zeyni an taalama an biyadihi kullal kullul umuri fi zaman xamal ne li tax nga doo ngistal da ngay xam ne yàlla ci loxoom la lépp nekk ka ngay def ngir mu gis la mënalu dara yàlla rekk moo lay jariñ moo lay lor mu ne wal xalqu laa yanfau nafsahu layaat fa kayfa gayrahu isan min al ibaad kon nag nit ki na def ngir yàlla moo taxoon mu waxoon ne na nga jëfal suñu boroom subhanahu wa taala waaw na jëfal suñu boroom mi nga xam ne boo ko jëfalee te sellal ko mu fay la moytoo jëf ndax mi ngi mel ne ku yor gànjar goo xam ne la nga ca mën a am bari na lool nga nga wanteer ko ci lu ñàkk solo mooy ngelaw am loo xam ne yaa ngi koy jëf man caa am ngërëmul suñu borom subhanahu tax taala ak ngërëmul suñu borom ni mu màggee nga di ci wut tàggu nit ñi te tàggu nit ñi du dara dara kon yàlla ñu yàlla musal ci sal yàlla suñu borom wërsëgal ñu sellal yàlla ñu yàlla def ñu bokk ci ñuy dégg ndigali sëriñ bi di dégg di dégg ndigali ki nga xam ne moo ko fi toogal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla di ñaan yàlla mu yàggal ko fii te wéral ko àggale naalam yépp ak yéenam yépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.